gaay bëgge bu baax di leen ko yéene pare nañ ñu gis démb Fass Tafatin Boy Niang ñëwul ngay gëstam sa gis ci loolu lan la non Boy Niang da doon ñëw parce que parce que ñun du ñu jóge fii dem ba foofu si dara Boy Niang dafa nekkoon si yoon di ñëw peut-être nag xëy na ñoom mënuñu xaar bu deewu nañ dem ñu ne mbër na retourné ñu ñibbi si waat noonu la deme mais daal li si am solo mooy da ngeen a bëgg a gis Boy Niang di ngeen ko gis dafa def nii dafa def nii léegi mu leer dimanche yàggatul loo doon xaar ay deux ans di ko xaar un an di ko xaar ay huit mois léegi ñu naan ay bës si sant yàlla di ñaan suñu borom mu may ñu li nga xam ne entraîné nañ ko bu dimanche ñu wane ko. wala kay déet ne la fay xew dimanche moo koy def. du def dara xoolal wuy ma Dakar du saf safaat. li mu doon def magam yi loolu lañ ko def looloo ko déranger day jël par force day séddu Pikine na soxla bu Pikine soxlaa dañuy xaar fii lu fi nekk ñun ñoo ko jur ñun Pikine. yaa ngi si forme léegi bu ñëwee di ngeen ko gis incha allah. a bëree tactiquement ndax ku ne xam ne xam ne loolu du lu ñuy wax xam nga xam nga li sonal gars yi mooy yàkkamti bi ku si nekk bëgg nga xam Boy Niang lu muy def wala lu Balla Gaye di def waaye yàgg bawul dara liñ doon xaar ay at. ko xaar ay weer yegg si na bëgg bëgg bëre bañ bañ bëre ñun waa Pikine dañuy teg jeexal si combat bi. li ñu jeexal booy ñaar fu mu nekk kenn mënu koo gis. ñëw léegi ngeen gis ko yéen ñëpp incha allah. am nga ndox. jàmm ak pexeem yàlla ak dogaleem. ñëwul ci signature mais c'est la première loolu jaaxalu leen yéen. nit dina bëgg def benn affaire mën a def il s'est trouvé woon na pour ñëw mais am na ay ndok yu ko teree ñëw looloo tax ñëw loolu nag su ni ñun ñëpp comprendre nañ ko noonu benn problème amu ci parce que lamb ji jaay na boppam ba pare bëgguma woon di ci wax dama ko rek pour nit ñi nit ku nekk da ngay ànd ak ay ndam heureusement que mu nekk ndaw am na nattu feebar am na nattu ay blessure am na nattu accident mais bii nattu bu noonu mais empêché na ko ñëw nañ ko jàppee noonu rek philosophiquement après la victoire. comme lu signé wala yaakaaroo ay daan fekk ko ci wala. non bu ko ci daan fekkee ñu xam ni yoon la am na loo xam ne bu la dalee ñun duñu toog di wax ne ñoo ne ci dëgg wala dara dafa am ñu ñuy jiite ñu ñuy jiite am na ay kayit yu ñu bindante woon ak ñoom. toll nañu fii bu boobaa nag confrontation lay doon ñoom ñoo ñuy laaj ñu ñu wax leen waaw loolu moom. waaw dina ñëw làmb ja. ah dina ñëw làmb ja dimanche. ah mais xam dina ñëw léegi incha allah. jërëjëf Diop ah. SDE SDE baax mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi yàlla bu baax. ay fan moo des seen diggante ak Balla Gaye 2. nan nga waajee. waaw d'abord dañuy sant yàlla jullit yëpp di sant maam Seydou ñu ñëwaat waaye ma ci seetaan yaa ngi ànd rek Dakar Buzz. xam nga dama ne. tey ko màggal. mais gaynde gi gaynde gu dul lekk buum la gaynde gu dul lekk yàpp la buum lay reere gaynde gaynde gaynde bugul yàpp buum lay reere foo teg ne gaynde gu màgget la bu pare ne ko gaynde gu màgget gi ci làmb ji dafay xuuxale waaw du mat du fàtt dafay dafay xuuxale tey lay dee foo teg ne foo teg ne gaynde daa màgget ci loxo teg a def foofu laa ko teg dafa def li màgget de mais moom lambam moo màgget. dégg ñu dara. la moo dàq. dégg ma dégg ma. ma def na xew ca bis ba moo ko fay def. ma. waaw loolu moo ko boo ñaala mais bu dimanche loolu moo ko na ko def. ci wàllu bàq Adama Ngom foor na téeméeri sabar. waaw Adama comme li ma la waxoon lay waxaat sama sama mag la. waaw moom tamit ci kay ndey màggal bi la soog quoi. waaw parce que da ko da da da nga koo pikiir boo dafa war a téeméeri sabar ak ñeenti cung. mais moom bu fooree téeméer bu fooree téeméer sabar. estat estat dañu duñ la may téeméeri sabar nga def ndànk rek. ah nee na day daggal ñu ne ñu ticket da leen daggal ticket. non ma def ndànk rek moom xaw ma moom mag la. ah nee na day dagg ticket de. non mag la te te moom tamit sama rakk la. mais mais fanaan tey boo ñaax ban tëgg bu bees nga ko indil bi yoon. waaw mooy kay ne ko màggat gi. waaw làmb ji du mat du mat du fat dafay xuuxalee tey uh-huh. lay dee ba pare ne ko gaynde gaynde waaw gaynde ko bugul yàpp nga buum ngay reeree ñu gis booy ñaa bu dee bëre da ngay pression ngir sa doom la nooy dundee pression boobu waaw booy ñaa moom booy ñaa xam booy ñaa sama doom la ku am confiance si moom la du ma am pression te xam naa moom dimanche lan la ko jaral mais booy ñaa bi nga xamante ne moo doon bëree jamono yi passé mu am ki xamante ne mooy Balla Gaye moment bi loo gis sa mbër am nga si moom confiance wala gisoo si moom benn trac non boo ñaaw boo ñaaw xanaa ñu xamul rek ñooy wax moom da koy wax sax naan ñi may wooyee moo ñi may wooyee sama tour original ñoo ñoo ma xam man nag maa doon duus maa doon duus ba yooyu muy ñëw xam naa ko bu baax gaynde gu màgget yi gaynde yu màgget yi ah. ku ci nangoo bëre da laa wax bu ko mënta tur bu ko mënta ku ci nangoo bëreeg moom lamb ci